bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare itam bokki jullit yëpp eh, ñu ngi ni toog ak sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Fallou mu sëriñ Chouhaïbou mu am ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke xalifa général des mourides jëm ci bokki taalibe yëpp kon ñu bàyyi ko mu jottali ndigal li ni ko sëriñ bi santaane. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala waa kay suñu mi ñu ngi delloo nuyoo bi ak siyaar bu baax kon ni nga ko waxee rek sëriñ bi Cheikh Mouhamadul muntaka ñu ñaan sunu borom mi nga xam ne moo am xam sañ man te kàttanam it di lu yëmul mu bàyyil nu ko fi ba ak dundam doon kiimaan ci ñëpp ci barkeb Seexuna Ahmadul Xadim moo nu woo léegi ci waxtu juróomi waxtu. ci bis bii di yawma asura eh, jox ma ndigalul naa ñëw fii ci daare Hizbut Tarqiyyah ci jëwriñ ji Sëriñ Yuusu jottali ko ndigal lii ngir ñu saare ko ba mboolem mbokki taalibe yépp ak mbokki jullit yëpp man cee jot te jariñoo ko ndax njariñul kese la bayit wi nga xam ne moom moom la sëriñ bi wax ne man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa zaaka fit daarayni du kat wa dur la wax ne mu ngi jox ndigal mboolem taalibe Sëñ Tuubaa yépp ñu saxal ko bis bu ne eh, gën jaa néew ñetti yoon ci suba gi ak ci ngoon gi ñetti yoon nag mooy lim bi ci gën a néew waaye ku ko weesu it amatul ab lim loo ci def rek baax na waaye daal ñu ngi ci jox ndigal mboolem murit yëpp ak képp koo xam ne nangu nga laabire gu jugee ci moom ndax njariñul kese la lu jëm ci jullit yëpp man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa daaka fi daareeni du kaddin wa xam naa jox na ci ndigal sëriñ Yuusu it ñu bind ko mool ko te tasaare ko ba képp ku ko mën a jari bëgg a jariñoo rek jariñoo gi du la jafe bu ko defee bayit wi nag doonut bayit wu bero am na yu mu àndal waaye sëriñ bi jëmmi bayit wi rek la wax ne moom la joxe ndigal bi koy waxee dafa wax ne nañ jiital bismillahi rahmaani rahim wane sëriñ bi moo ko wax moo ko waxal boppam ne xaalahu seyxuna ahmad al xadim alayhi akbaru ridwanillahi baaxil xadim su ko defee teg ci bayit wi bayit wi nag moom la joxe ndigal bis bu ne gën jaa ñett yoon ku xas weesu ñett nag amatul ab lim ngoon gi noonu yàlla nu yàlla fayal sëriñ bi gën jëlum masa fay ku muy liggéeyloo te defal nu ak dégg akub topp akub jëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bayit yi nga bi wax ne man xon na xayrallaahi yoo xam fa zaaka fi bu kaddin wa la wax ne mu ngi jox digal mbooleem taalibe Sëñ Tuubaa yëpp mu saxal ko bis bu ne gën jaa néew ñetti yoon ci suba gi ak ci ngoon gi ñetti yoon nag mooy lim bi ci gën a néew wa munzili shifaa'i wa dawaa لمنزل تناودا ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل تناودا ومنزل الشفاء والدواء يدعو به عن البلاء ثم على من حيث مس سامرت يبرأ بلا ملك وفاز بالخير محمد الطبيب بنا الحكيم waaye di sant rek. san mm, sant ñaan yooyu. yëpp gis nañ ko de. <laughs> li li li ñaan ngay ngeen dolli rek. waaye tubarkal la. tubarkal la. dëgg la dëgg la. dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg la mm, moo tax day tubarkal. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax baax. di ñaan balaa màggal ga rek. kenn du wax loolu rek <laughs> lan laa ne ma <laughs> <laughs> ko. Ah, waaw da ngeen di def. waaw dëgg la ñaan rek ñu ñaan rek ñoom ah, ñu ah, nag daaw. xam nga ñoom la ak professeur Lamine Gueye. ñu doon bi. lépp lu jëm ci wàllu kër docteur yi. ngir jàngoro ji ak yu mel noonu. xam nga ñëwoon nañ fi. ñu ñaanal leen. suñ doon suñ doon eh, maa ngi la ci ndam noonu nag mm-hmm. lépp di ci sa barke dana mm-hmm. ñu ne la nañoo tàmbaliwaat dara saa mm-hmm. yu dikk ba ci yow yeesalaat ndigal li su ko defee nag soo ko dem tàmbul liggéey ñoom ñëpp nag sëñ bi ñoo ngi liggéey ci li ñuy jàppale comité d' organisation bi ñoom ci way wàllu docteur la seen kilomètre léegi nag su <laughs> mu moo tax lépp lu ñu defoon daaw te nga ñaanaloon ñu te sa barke yi taxoon yi ñu am ci ndam mm-hmm. loolu dañ ko bëgg a reconduiraat mu gën a yokk sax loolu amoon lépp te biir lii xew it mm-hmm. liggéey nañ ci bu baax ci ndigal yi di gouvernement bi di wax ak yi docteur di wax ak soreele beeg masque yeeg gel yeeg ren nag lii lii ñu ci yokk it gëstu nañ ko te buñ sañoon ni waxtaan ceeg askan bi mooy njëru vaccination yi loolu moom ñii ñëpp seen xel dafa màcc ci loolu waaw léegi nag ñu doon jël si ndigal surtout jël si ñaan daaw ñaanaloon nga ñu ñu am ci ndam ci li ñu liggéey ceeg Serigne Cheikh Abdou mi ak comité d'organisation bi ñuy sàkk si waat ñaan ak ndigal ñun taxaare wuñ taxaw rek. ñun taxaare wuñ rek. ñu yaakaar yàlla si ñaar si bëgg nañ tuba. loolu dañ dañ ci wéetal yàlla. ñu xam ne mooy def mooy dindi. dëgg la xam ne la ñuy def. yàqul soowul jiwu. dëgg la xam ne dañ dañ koy wéetal rek. ndax dañ ñaan ci barke sëñ bi. parce que moom doyoon nañ ko. dëgg la ñu ngi xam ne moom la gën a. dëgg la dama doon si liggéey ak suñu borom. dëgg la ji ñaar rek yàlla mën na ko. amiin waaw waaw waaw waaw yéen ji ëpp si sa mm-hmm. mooy taxawaay bi rek ñu ngi sant ci taxawaay bu baax a baax. Mm-hmm. tabaraka allah. waaw yéen di wax da mm-hmm. ngeen wax. waaw tabaraka allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. amiin amiin amiin منزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا وداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء استزاملت يبرى بلاد الجن وفاز بالخير محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا لوسف سلم comité d'organisation bi ci biir la nekk yàlla def nag ñu am xeewalu ñu dénk ñu lii ñuy wax alerte ak prévention loolu moom fu ay millions di nit di tase yaakaar naa am na solo lool ñoo xam ne yàlla may na leen ci xam-xam yu tuuti ba pare surtout ñu nekk ay taalibe engagé wu li euh, décidé liggéeyal sëñ Touba ci màggalam mi ci màggalam gi ak ci communauté bi léegi nag lépp lu ñu defoon daaw yéen ñu ñaanaloon sëñ bi jox ñu ci ndigal ñaanal ñu yàlla defoon amoon nañ ci ndam ñu yéenewaat euh, loolu ñu ci defoon daaw li ñuy def ren ëpp ko taxawaay buñ ci amoon daal ñoom ñi ñëpp taxawaat nañ ci partenaires yi nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal ndool daaw ñoom ñëpp joxaat nañ ñu seen engagement ne dañoo bëgg a taxaw ci liggéey bi léegi nag euh, dafa taseeg ren encore lii xew te daaw xewoon na waaye euh, ngir euh, suñu borom ak ñaanu sëriñ bi gis nañ ne màggal gi amu ci woon benn impact walla benn njeexit loolu nag am nañ ci yaakaar ren moo tax ñu seeti woon sëñ bi pour mu ñaanal ñu ci joxaat ñu ci ndigal ci lii xew nag daaw yaakaar na stratégie bi amoon na ci solo comité d'organisation bi ñu jàppale woon bu baax a baax ñuy sàkk yëpp ci yow muy président bi comité bi jàppalewaat ñu xam nañ ni sax loolu moom daanaka am na ba pare ñu liggéeyam ci liggéey bu rafet ak yoon ñu ko jiite liggéey ko ak sëñ Cheikh Abdou sëñ Ousmane yi jàppale woon nañu euh, ci loolu lépp luy ndigal lu gouvernement bi joxe dañ cee bëgg jàpp liggéey kook nag waa ministère de la santé ndax ñoom ñoo yore loolu ñun dañoo nekk ci biir communauté mouride bi jot ci ndigal waslu ci àq moo ñu war liggéeyal ci sëñ bi ci loolu nag ndigal yi li ci ëpp moom solo mooy loolu ñuy wax mesure barrière muy masque yi di gel yi yokk ci li ñuy wax distanciation sociale yàlla def na ne li muy doon yëpp ay millions nit distanciation sociale mën naa am stratégie bi ñu tëraloon daaw indi na ko parce que fexe woon nañ ba fépp fu ñuy ziyaare nit ñu jël seeni mesure waaye it bañ te loolu distanciation sociale la ñu de euh, àdduna di dox ba ren leneen dugg ci beneen moyen prévention muy li ñuy wax ñàkk yi loolu nag ci suñu euh, kuréel gi am na ci ñoo xam ne it ci loolu la leen yàlla may ñu gëstu ko ce qui fait que loolu it bëgg nañ cee liggéey wax ceeg askan wi noo xam ne yaakaar nañ noonu mën lañ ci mën a wax ñoom ndax euh, seetlu nañ ne ci mesure prévention yi gën a am solo la bokk waaw loolu yéen ñu sàkku nañ ci ndigal sëñ bi sàkku ci ñaan di ci ñaan it njàppale ba ñu mën cee wax ndax lépp a ànd rek mënuñu wax ne li gën lee mesure barrière ci la ñàkku yeeg vaccination bi ci la lépp daal ci la ñu fas ni cee liggéey nag bind nañ plan d'action bi nag ba mu taxaw xam naa dinañ ñëw partager ko ak comité d'organisation bi parce que loolu mooy voilà altine sax la <laughs> waaw sëñ Abdou woon na ma comme ça ñoom itam ñu xam li ñu nar a def euh, xelal ñu ci ñu soog a commencé nag def ay jéego dañ ne woon nag balaa ñuy def benn jéego ñëw ziar sëñ bi seet si la ànd ak sëñ Cheikh Abdou loolu mooy suñu tànku tey ñoo ngi sàkku ñaan daal waaw kay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di delloo am bu baax baax. di di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ci li weesu ak ci li ak segut li ëpp solo nag ni ko sëriñ Abdoul Ahad Mbacké waxee léegi mooy laata ngeen di def dara dem ngeen ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy fii sëriñ Touba te di borom digal li te lépp ni ci loxoom dem laaj ci moom digal ba mu jox leen ci digal yeesalaat ko ni mu leen ko joxe woon daaw wóol bi di ko ñaan soññee ci. te kàddu yi sëriñ bi wax léegi ne moom la wax doy na sëkk mooy doyloo yaakaar yàlla te doyloo Sëriñ Tuubaa te jéem a sàmmonte nag li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen la suñu boroom dénk loolu ni ngeen jàpp ni la war a deme ngir nit ñi mën cee mucc loolu euh, moom war na ne ci misaal ndax ku ne xam na Cheikh Mouhamadou Mountakha fi mu toll ci diggam ak boroom ku ne xam na fi mu àgg ci wakiilo ci loo xam ne ñun ñi ko xam démb xam ko tey xam nañ ko xam nañ moom mm, dundut dara lu weesu li suñ borom santaane ci moom waaye lu ko nangu dogalu yàlla ba tax sabab sax euh, lu ci ne fa ko yàlla yemal rek fa la ci yem euh, ba ci li mu woote woon bu yàggut yéeg bi mu ci amoon ak la mu ci wax waaye dégg kàddu yi mu wax bi mu ko waxee bi ne ginnaaw suba la mu ne ma ñaan gi ñu def kat dañ koy def tooxlu dellu ci yàlla tuub ngir yaakaar yàlla waaye nag delluñ ko dara ci ñaan gi ndax euh, suñu borom moom moo yor kattan gi moo yor coobareem ko xasee ba ñaan nag li jeex dañ koy bàyyi ci coobareem bu fekkee maye na ñu sant bu fekkee mayewut it ñu xam ne loolu mooy li gën ci ñun ma ne ko loolu da mooy baytu Sëriñ Tuubaa bi wax ne yaa rabbi in a'taytani fa shukru indi ma naa manata farida wa sabru kon mu dëppoo guy doo kon moom lépp foofu la ko teg kon nag doone sëkk misaal ci képp koo xam ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa wala képp koo xam ne ab jullit nga képp koo xam ne ku dëkk ci réew gi kay xool nga xam fi mu toll ak ni mu doyloo yàlla ni mu gëmee Sëriñ Tuubaa ni mu doyloo boroom ba nopp wëlbatiku masque yëpp mu di ko jëfandikoo mm-hmm. ngir wane ci aw yoon loolu la bëgg dimbali nit ñi loolu tax mu di ko def euh, boo doolee ci waxi suñ bay jaxate dafa am ñaari aaya wayete jënn bu xal asqal la si ak wa sëyu jënn bu xal atqal si loolu mooy li sëriñ bay jaxat di wax nan euh, kiy daw kiy ak ki lu bon di daw mooy ñaar yooyu mm-hmm. wa jën wa sëyu jënn bu xal mooy loolu kii daw lu bon ngànjëg murid la bu yëggagul waaye nag ki nga xam ne daw na borom moom ñaan lu borom koy daw daa cee bul dégg nag wax ji wax tax nag nga naan yónnante daa musloo ko daw laajal lu xew loolu mu daa musloo dafa daa xamal xeetam bi waaye juddóor ji fu mu war di am kon sëriñ bi bu gisee lii mu di ko def mooy day wone nit ñi fi war a jaar te moom loolu responsabilité ma ndax ku fi mas a nekkal Sëriñ Tuubaa ku ne Cheikh Abdoul am na kàddu yu ma sa yëkkati jëme ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye ñoom doon waxal ci biir wax na ne ne responsabilité diggam ak Sëriñ Tuubaa ci lu ko Sëriñ kon képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa lépp loo diggal nit ñi rek laay liggéen ci ñoom loolu te topp ndigal li ci la njëriñ li ne kon loolu nit ñëpp gën a góorgóorluwaat ngir xam ne ne bu ko sëñ te santaane ko it ñëpp war koo def ngir toppi ko ndigalam rawatina rek mu di ko def ba noppi jiitu ca di ko tegtale te jublu ci daal lu may bëgg nañu sàmm te ku baax ki Cheikhul Khadim euh, ak Cheikh Ibrahima Fall daana ko wax nee na Sëriñ Tuubaa ñoom ñu yare lépp lu ñu digale moo ñu ci jiitu bu dee jaamu yàlla moo ñu dàq jàmm yàlla moo tax fu mu ko mosaan wàcce ci liggéey bi mu koy liggéeyal mu ne ko yaa ma njëkk a xëy ci liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. te gisaguma nga wàcc ba ndëgg mm-hmm. kon ñooñu tam foofa lañu war a ne mm-hmm. lii nga xam ne mooy li fi xew nag di mbas mi coobare suñ borom netti naa ko ba tàyyi ndax ci njaarim la ci sëriñ Tuubaa waxoon ba mu àndeek tubaab bi ànd ak sëñ Balla Coor ba mu dikkee eh, di ko leeral fi situation bi toll fekk sëñ boo xam ne lépp sëñ bi ne leen lu fi suñu borom wàcce la waxtu bu fa jeexalee dana jeex. ban jaaxle ba jaaxlaa ñoo ne xëy na sëñ bi dafa déggut fi àdduna toll. moo tax bi Cheikh Mourou Mountakha wootee am ñu bari di jaaxle. may leen jàmm képp ci topp. ndax màggal Tuubaa gi daaw. ba mu ci joxe ndigal. ñu bari jaaxloon nañ waaye jàmm ci topp. nit nag la la weesu nga jàng ci gëme ca. li ci essiw li nga essiw daa war a sama xel. ginnaaw bi tubaab bi ñëw bi mu dellusee di gën a leeral sëñ bi sëñ bi bu tàmbali rek sëñ bi ne ko xul innal mawta llazii fi minhu fa innahu mulaaqiikum tubaab bi nga waxaat ki mu àndal na ko ne ko aynamaa takuunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum wax ne yàlla suñu borom mi ma mi fi te dégg ngeen nettali naa ko fi daaw ci màggal bi bi mu jul am na koo xam ne ku ñëpp xam la da koo dal mu agsi fekk sëñ bi ci jàkka ji sëñ bi sëlmal ma ne ko maa ngi de wéer ji waaye bu ma dee danga koy layoo sa borom sëñ bi xëy ci jàkka ji bis rek dem fekk ko kër ba mu ko juboo rek mu ne ko bu ma jege de ndax damaa pes ndax pes xam nga ne kooku ku mu ma sa jege rek kenn dootu ko nettali waaye sëñ bi daa ñëw ba tiim ko jël loxoom teg ci boppam. daal ko tàggale ko fa sax sax. loolee nag. moom foofa la àggoon. moo tax suñu kilifa gu baax ba Serigne Sox yi bu daa wax ne. dafa am ci magi magi Serigne Touba ko ah ñun magi taalib yi dañoo amul jaaxle ndax dañoo gis seen ngeen fonk docteur loolu. gis ne seen waaja ku ku ku bañoon loolu la. <laughs> mooy Serigne bi. sëñ bi ne faa ah, moom de dañoo bokkut ak moom mm-hmm. ndax moom de bu ma sànn jàkkaarloo bu wërëjee danaa ko jàngoro bàyyi diw mm-hmm. mu dem ma ne ko ku mënta àgg foofu nag ñu doy loo ko tey ñaan ci barkeem te leen yebal ci docteur yi mm-hmm. waaye rek ñoo la fay jiitu waa kër Sëñ Tuubaa ci ñi xam ku ma sa wér di ci seen biir dañ la yebal ci docteur yi kon loolu cër la bu leen suñu borom jox fasalu ahli zikri in kuntum laa ta'lamuun moo fas suróor yi ñu bëri danañ ko firee ci anam yu bokkut waaye bari na ci ñoo xam ne wax nañ ne tàbbi na ci biir kon yéen itam li ngeen jàpp ne moo ci musle mooy yi ngeen wax yëpp di ay nattuwaay ndax euh, nit ñi itam léeg-léeg li ñuy wax tanaaxut da leen dal tanaaxut mooy contradiction ndax nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di jooju alxuraan def moo leen dal bëgg gëm li weddi li ndax koo xam ne bu sa bopp mettee boo demee si docteur mu digal la aspirine nga naan ko. nga gëm ne da ngaa war a wér boo sibbiroo war a war a dem hôpital kon jàpp naa ne. ñoom itam bu ñu xoolee ba gis ne lii moo ko mën a saafara buñ la ko waxee ko war a gëm. ci ci te gëm naa ne itam sekkare suñu borom ci biir ndax yàllaa ni si wàcc. ci waxoon na ko yonte Yàlla Moussa. lu gudd lu wax mu jël dellusiwaat. kon daal ñu ngi soññewaat. di rafetlu di sant. waa comité bi yëpp ñu ngi seq mm-hmm. rawatina ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp yi bàyyiwuma kenn waaye bu ma ci tuddee sëriñ Ousmane mm-hmm. tudd ci sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi mm-hmm. tudd ci sëriñ Cheikh bi ak yeneen commission yu ko seq yëpp mu mën a yóbbaale mboolem ñi ci ne ñëpp di sant ñoom itam ci seen pëstéef ak seen taxawaay ndax lii ñuy def lu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal bu ma leen ko xasee bu wàcc wax rek noppi laa ja ñoo ci def yitte daaw xam ngeen ne def nañ ci taxawaay bu mot sëkk def ci pësteef ba ñu am ci ndam ginnaaw njaaru sëñ bi pësteef boobu nag xam nañ ne waxuma man sax waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ñu koy defal xam ne pay gi ci loxo la suñu tubaale ne loolu nag loolu la dund moo tax soxluñ ko ko xam soxluñ lañ ci def nit ñi di ko xam waaye nag kañ ko seq di sëñ bi xam na ko kon nag yàlla leen ci gën a defal kattan ngeen leen ci defal ndimbal ngeen leen ci defal tawfeex ba ndam yi ñu ci amoon daaw ren ji ñu ci lu ko te gëm naa ne itam yàlla euh, la ma waxoon rek Serigne Saliou Mbacke waxoon ne ne yaakaar ko Serigne mm-hmm. kon nag ñu ngi rafetaa njort mm-hmm. te delloo delluwaat lépp suñu borom nag mm-hmm. kattan gi di borom sañ-sañ bi te mooy def mooy it lu mu def rek moo gën ci moom ci nit ndax li mu wax ne asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa kon nag ñuy soññ bokk taalib yëpp ak bokk jullit yëpp ñu jéem a gàttoon ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga xam ne santaane na ko ci lépp ñu bëgg a sàmmonteeg xam ne dañoo nekk ci biir réew mi doyloo Sëriñ Tuubaa yaakaar ko xam ne mën naa dox suñu diggee lépp dëkk feeg suñu nawle mm-hmm. te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan wax na ku la yaakaaru ku ne sam nawle mm-hmm. kon ñun dëkk lu dëkk réew mi te bokkuñ luñ gëm war nañ leen siddi ndax àq dëkkandoo dafa for dañoo mm-hmm. bokk réew mi kon it ñuy sàmmanteeg loolu lépp loo xam ne ñëpp ko def ñoo koy àndandoo ndax euh, dañoo nekk ci biir réew mi nekk ci biir àdduna te mënuñoo beddi ko ndax suñu saar yi daan na ko wax lépp loo xam ne day war na tubaab mi ngi bedd ko ci réew mi rek war nañ ko daw lépp ndax ndax neen Touba mooy xolub Sénégal kon ndegam mooy xolub Sénégal nag lépp lu ñuy def rek luy war a gën a jëmbal benn réew mi la def kon nag xalaat yooyu yëpp nag suñ kilifa yooyu ko jëlee kon ñu ngi ñaan yàlla màggal yi ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm day ci tawfeex te suñu borom musul ñu ci jàngoro ji bañ a law ndax xam ngeen ne jàngoro ji li yóbbu ci bakkan bari na mm-hmm. am na ñoo xam ne itam bu fekkente ne romb na leen jàll itam dana bàyyi ci ñoom jeexit mm-hmm. li muy yàq ci koom-koomu adduna yi bari na. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne mm-hmm. jamono ji métti na ci nit ñi. Mm-hmm. te loolu lépp yokk na ci lu bari. jamono ji métti woon na mu ñëw at ko. Oh. loolu lépp nag kon lépp luy tax loolu gën a jeex ñëpp ci war a góorgóorlu. def ci def ci posté def ci taxawaay. te digg leen ci yéen itam. te bañ cee jooy ak ndax loolu suñu borom leen ko jagleen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. bi izni rabbina wa jaahi Mustafa صلى علي ربنا كما صلى حمدا لمنزل لنا وداي ومنزل الشفاء والدواء من امر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء